nekkee ci ab dëkk bu melni ni euh, euh bo xamante wa Medina. euh dañu am ce qu'on appelle une confiance euh, totale euh, lors des élections de 2014 votel ki nga xamante moy actuellement suñu maire muy monsieur Bamba Fall pour que mu diriger la gestion et le devenir de de la Medina. ci période bi nga xamante mom lañ ko jox mandat bi euh, ci loolu Bamba Fall le maire dafa am un programme boo xamante ne il le suit euh, du moom moo toj donc c'est-à-dire que il a un projet qu'il a discuté et émis au niveau du conseil municipal discuté ceeg ñoom et puis conseil bi validé ko. parce que euh, ba ma ko yëgee effectivement je me suis dit que ne lu xew ak monsieur le maire bu fekkee ne dindi na fa édifice boobu lan la fa teg wante aussi dama aussi euh, euh, à juste raison aussi pour que nous toj même vous, même plus euh, le même endroit ce que nous devons le maire le maire de la Médina monsieur Bamba notre maire euh, a été élu par la population de la Médina Wa Médina ñoo am confiance ci moom dénk ko li nga xamante ne le devenir de la Médina pour une durée bien déterminée euh, ca élection 2014 yooyu dama ci bokkoon doon xëccoog moom maire Médina euh, suñu borom moy fal suñu borom moko fal ne Medina de Bamba Fall la koy denk ci giiru 2014 ba 2000 aujourd'hui 2021 éventuellement vous faites que les élections vont s'arrêter en en 2023 euh, Bamba Fall il a une feuille de route Bon xamante ne dafa am un projet avec les Médinois te ci projet boobu dindi édifice yu màgget yi nekk Médina pour di ko parce que ku xamoon jàkk jooju xam na dugg fa di fa julli sax parce que tey jii mu nit mën na fa dugg di fa julli dal bi mën na daanu ci kawam te bu parce que dafa bokk tey ci édifice yu gën a màgget ci biir Medina te tey jii xam nañ ne Medina li fi nekk lépp ci tabax boo xamante ne yàgg na dëgëru immeuble yaa ngi daanu euh, école yaa ngi daanu salle de classe yaa ngi daanu bu ñu toogee nag ba ñu ne jàkka fa ñuy jaamoo yàlla nit ñee ngi julli dal ba daanu ñu seen kaw kooku kooku musiba la te sax euh, euh, je suis pas l'avocat du de de Bamba Fall mais je suis un Médinois boo qui rêve pour un pour une Médina nouvelle je suis un Médina qui rêve pour une Médina avec des édifices neufs je suis une Médi un Médinois qui rêve d'avoir une Médina boo xamante euh, avec une joie de vivre et une Médina boo xamante ne tey jii bu ñu di fi jaamu suñu borom ñu mën di ko jaamu ci ay endroit yo xamantene xel daf ci daf ci dal tey parmi les 33 mosquées yi nga xamantene ne dañu nekk biir Médina la mairie de la Médina et son conseil municipal ñongi ngi jàpp bu baax ci liguey bobu tay ji euh, jakk avec son état fréquentation bi sax amatu fa c'était risqué pour que un maire responsable comme Bamba Fall di bàyyi édifice bobu di fa nek ba musiba war fa juddu ba ba ñu fay dal en parlant de l'environnement jakk ji dafa nek ci environnement wu mosquée bo xamantene ne di juju li nit ñi di teg ay à côté Ou les ñi di di à côté pas loin de de là-bas à moins de 50 mètres y a la mosquée bi nga xamante ne tey jii moo ngi nekk ci rue 27 bi pour kuy julli da ngay jóg d'un ci mosquée ji fa donc euh, euh, laissons le maire continuer liggéeyam sur la base de la confiance bi nga xamante ne la wa Médina am ci la population médinoise am parce que en 2014 bama ma di jakonté ak Mom, di xëccoog moom mom la ñu préféré à la place de Ousmane Kanté il essaie de faire avec le peu de moyens qu'il a notre objectif notre devoir dafa wara nek ci uniquement l'accompagner dans un cadre unitaire dans un élan de solidarité de construction pour un devenir meilleur de la Médina à la place de ça tey jii boo demee centenaire Gibraltar le maire moom fay tabax keur Cheikh Ahmadou Bamba euh, tay ji ku bëgg a jaamu sa yàlla di fa jaamu ji. wa n'empêche c'est-à-dire que on est dans une démocratie dañu nek ci dëkk bo xamantene gatché gàcce le président Macky Sall parce que dëkk la bo xamantene ce qu'on appelle euh, euh, le droit à l'expression est autorisé au Sénégal on est dans une démocratie mature nit ku nek am nga droit dans le respect ak li nga xamantene mom la yon tek buñu ñu mbir à ku ko mën ci le maire qui est l'élu numéro un au niveau de la commune moo xam le président de la république bi nga xamante ne mooy le Sénégal le président Macky Macky Sall ku nekk am nga droit d'accord avec le maire bi d'accord avec le président def mais l'essentiel est que la majorité y voit euh, euh, euh, son, son son intérêt et qui connaît les Médinois xam ne jàkk jooju nga que... ne maire bi dindi na fa pour def lu gën fenen pour ñu mën di fa jaamu yalla ci xel mu dal bu fekkoon ne intérêt medina nekku ci tay ji wa medina ci sen bopp ñoy jóg tay ji wa medina ci sen bopp ñoy taxaw xamal monsieur le maire ne ko nga def ànduñu ci ils l'ont pas fait parce qu'ils adhèrent à la politique du maire et puis euh, Bamba est conscient parce que Talibé Seigne Touba la Bamba est conscient parce que Taïdi, jii Medina Médina Bamba est conscient parce que Taïdi, il sait que il est l'élu de la Medina pour mandat bi nga xamantene mo fi né nañu dans un cadre unitaire dans un élan de solidarité surtout ci période bi nga xamantene tal nañu lenen ak mbass mu bon bi di sonal nit ñi di indi ay cas communautaire ci biir le maire tal na lenen lu dul sur des sujets sans importance majeure j'appelle les Médinois à accompagner la mairie de la Médina vers l'essentiel l'essentiel c'est quoi Moi, Médina le maire est en train de mettre en place avec le comité de gestion du Covid-19 de la Médina dont Seydou est membre Ousmane Kanté est membre Cheikh Ahmed est membre tous les élus tous les responsables politiques religieux les Badiou et la société civile sont membres ñu ñëw jàppale monsieur le maire Bamba Fall ci liggéey bu muy liggéey bu politique jotee nag ki ma ko ne xam ne man damay xeex dinaa sur ci terrain bi xeex ak Bamba Fall mais actuellement c'est pas le moment moment la bi pour liggéey nous nañu jàppale Bamba mu continuer liggéey bi muy def au niveau de la Médina. xam nga Ousmane Kanté euh, Ousmane Kanté amul amul njëriñ. Ousmane Kanté n'a aucune utilité n'a aucune importance Si li nga bëgg wala Médina je le dis et je le répète Si bu Médina là, Ousmane Kanté n'existe pas il faut que les gens qui font de la politique qui essayent de décrire Ousmane Kanté nous comprenions comprendre Ousmane Kanté n'est rien du tout quand la Médina a besoin Ousmane Kanté son concept politique de yomb Ousmane Kanté Médina moins ko ku ko woo ci liggéeyu Médina mu fekk ci la bu fekkee ne intérêt Medina mo taxaw damay bàyyi lepp ba mu jeex j'ai laissé l'Europe pour la Médina j'ai laissé une fonction de cadre supérieur dans la fonction publique française pour la Médina j'ai laissé une fonction de cadre supérieur au niveau de la Société Générale au Sénégal pour la Médina j'ai laissé mes intérêts personnels pour la Médina en politique je suis derrière personne samay homme maa ko moom fuñ ma ci njëriñu Médina ci pour démolir Medina kanam je serai la première personne à y répondre parce que c'est ma conception politique c'est comment construire la Médina comment participer au développement de la Médina naka def pour Médina soqaliku mais naka def pour soqali nit ci politique wala pour soqali ci politique lolu amuluma njëriñ